ñu sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM tey nag ñu am ci mbégte bu yaa toog fii euh, ci émission gox bi di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Mamadou Mbengue nekk rek bokk moomeel bu commune bu Dalifort ñoo Dalifort ñu am ci mbégte bu yaatu ak contentement di la dalal ci émission gox bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga saafonte ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoom ñuy bàyyi xel. salaamaaleykum monsieur Dramé salaamaaleykum les auditeurs de Rewmi FM. Mm-hmm. di nuyu di nuyu le réalisateur. Mm-hmm. donc di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñëpp ci nekk Dalifort particulièrement mm-hmm. di nuyu tout le Sénégal. am na solo Léopold Mendy moom mi nga xam ne moom moo nekk ci xarale gi monsieur le maire dañ koy daal di dooree rek xam nañ ni euh, suba ab euh, ndaje bu yaatu moom moo nar am ci biir Sénégal ñu duppee ko rek juróom-ñeenteelu forum de ci àdduna wërngal këpp euh, li ni mel nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay chef d'état chef de guvernement ñëpp dinañ fi daje daal di waxtaanee li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum ndox ndaje bi nan nga ko gisee en tant que maire. waaw dama koy rafetlu dama koy rafetlu bu baax a baax parce que je pense que Sénégal c'est un exemple actuellement donc euh, particulièrement dans la sous-région donc je parle en conscience de cause parce que avant actuellement à la SONES e donc xam naa fa liggéey naa fa ma nekkoon le comptable chargé de la trésorerie mhm. donc euh, état def si ay jéego yu am solo macha allah donc bu njëkk ba ñëpp dañ doon yuuxu Sénégal problème manque d'eau et tout mm-hmm. mais aujourd'hui je pense que beneen souvenir la fi gënoon a doy waar sax ay ñoom Nord Foire ay ñoom Parcelles Assainies tey boo demee beneen problème moom la ñuy wax mm-hmm. donc je pense que tey boo demee ba Kédougou fi gën a sori mm-hmm. ñoom nga xam ne tey pour ñu amoon ndox donc c'est tout à fait un problème le président de la République jaarale ko SONES donc di remercier le directeur général de la SONES donc ñu def fa liggéey bu mucc ay ba tey waa Kédougou xamewuñu saison des plus ak saison ces donc je pense que tey bu ñu choiser le Sénégal ñu indi fi forum forum de l'eau c'est pour ñu montrer l'expertise bi nga xam ni nekk en Sénégal ñu jaay ko partout à travers le monde mhm. donc je pense que loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax te incha allah ku fi ñëw dina xam ni Sénégal macha allah mhm. monsieur le maire bu ñu la déggee ngay wax dafa mel ni fii euh, Sénégal euh, amul problème ndox te moo ne de am na fi fi ñu soriwul dara benn tali ñaari tali euh, ndox bi léeg-léeg euh, lu ñuy tumranke lay doon dafay metti lool euh, fële nga xam ni nag moom moo jëm ci diwaanu ñiit jege lool Kër Momar Sarr Kër Momar Sarr ñetteelu usine bu gën a mag ci biir Sénégal fa la nekk mais dañuy gis ni ñoom itam jote ci ndox mi ak à l'eau loolu problème la dafa mel ni ñaari Sénégal moo am de. bon je pense que am na yoo xam ne kenn mënu ko weddi kenn mënu ko nuyee mais xam nga tey euh, àdduna xëy lu xew sotti donc je pense que le président Macky Sall bi ñëw en 2012 waxuma la euh, benn tali ñaari tali mais Pikine Kasoor bi sax pour nga amoon ndox c'est tout à fait un donc te tey nga demoon poste Thiaroye c'est à fait un problème parce que investissement bi moo yàggoon donc le président Macky Sall nag bi mu ñëwee donc si la injecté de gros moyens. <laughs> te tey instant pour ñu solutionner problème benn tali ñoo ñaari tali. am na benn usine de de essence de dessalement mhm. boo xam ne actuellement état bi mi ngi koy essence construire c' est gagné même par les japonais mhm. donc ñu ngi fi mhm. loolu je pense que fi fii que une année donc loolu tamit dina nekk loo xam ne dañ koy fàttaliku comme tey waa Parcelles Assainies ni ñuy fàttalikoo ne manque ndox de ñoom dañoo yeewu cinq heures kii ndox Nord Foire aussi la même chose dañ doon yeewoo cinq heures du matin di am deux heures de temps seulement donc tey pendant toute une journée donc heure bu leen neex la ñu ubbi essence robinet bi je pense que avancement bu extraordinaire la. Mhm. mais mënuñu mënuñu bañ yenn manquement yi. Mhm. donc mais le fait que ñun ñu prendre conscience de cela rek. Mhm. c'est déjà papa bu bag la. te incha allah rabbi fii ak at bi di ñëw. manquement yooyu noonu leneen la ñuy waxati dañ naan kay la qualité essence de loo ñu yokk ko ba mu doon loo l'eau de source et tout genre ba noonu mais dinañ ànd jamono incha allahu dinañ ànd ak jamono ba ndorteel gi ngeen ko daal di sumb waxtaan bi juróom-ñeenteelu forum bi ak ville de Dakar ngeen daal di waxtaan bu baax tey ñu egg ba ci cappaandaw gi ngeen jël lettre d'invitation rek envoyé ko tey euh, ki fi nekk bokk mamel bu dakaar di Barthélémy Diaz ba tax na moom sax daal di nee na contre forum lay daal di amal door na depuis vendredi ba tey mi ngi ci divergence boobu nan ko ko mën a expliquer bon je pense que malheureusement Sénégal donc euh, tout est politisé atmosphère bi dañ koy yàq donc forum bi nii bi ñu koy liggéey ay at la si ginnaaw donc on a impliqué tout le monde ñëpp la ñu impliqué mais bu ñu demee ba cérémonie officielle lu xel mën a mën a na autorité bu nekk dinañ envoyé lettre et sign d'invitation pour nga assister cérémonie d'officielle c'est c'est la même chose niñ ko envoyé en tant que maire de la ville de euh, Dakar noonu lañ ko envoyé yeneen maire yi mais membre intégrante la parce que ñoom lépp lu ñuy def atelier yëpp ba si bi koy lancé yëpp ville ville de Dakar était bien représentée mhm. donc je peux pas concevoir ñu dem ba mu des benn fan gars yi yoraat beneen forme de communication c'est vraiment malheureux parce que Sénégal lépp dañ ko politiser instant dañuy liggéey ba sotti mhm. ñu xeexee un bon jour donc génnewaat taxawaat feneen pour jéem a nax askan wi donc je mhm. pense que loolu ça ne passe ñun les politiques dañu war a changer la façon de faire est de la politique. Mhm. chaque jour dañuy dugal si askan wi loo xam ne bu subaa ñun ñu génnaat weexaat tàll mel ni nekkul ñun donc je pense que mun nañ ko éviter te ñu xam ni romb nañ le temps est des le temps est le temps de la politique est déjà consommé. Mhm. dañu war a liggéey ñu jiital intérêt Sénégal. Mhm. est-ce que jàppaloo ni tey la Barthélémy Diaz tey ñëw moo tax. Euh, ñu daal di koy doxalee mbir mi nii parce que mënoon nañ ko bàyyi itam mu ñëw fekkee ndaje bi jël kàddu bu ko aajoo sax mais pourtant pourtant ni ñu ko joxee wax naa la amul dara lu si changé parce que nekkatul Barth mais institution bi la. Mhm. la personne bu morale essence de la ville de Dakar. que muy Barth que muy Wardini que muy keneen que muy keneen ak keneen. Mhm. la personne importe peu. on fait pas de jugement de valeur mais malheureusement nit ñi ñooy dox seen xalaat di xalaat lu baree bari ba. ba malheureusement la ñu yaakaar ak nit ñi lañ tënkoon dafay wuute. Bart bu ñëwee ñëpp xam nañu forum échange de l'eau bi ak nu mu mën a mel. Mhm. Bart bu ñëwee donc dañ koy jox parole dafay wax. Mhm. mais tey bëgg xëpp si affaire bi suuf. Mhm. donc moo tax ñuy génn di wax leneen. mais moom bu ñëwoon ba foofu. mu respecté comme li ñu ko wax. donc comprendre position bi daal. non kenn mënul comprendre la mooy position bi mënuñu ko jàpp lu dul position politique la. politique nga ci jàpp. waaw man la rek laa ko jàppee. politique woy ci waxtaan bi ci li nga xam ne moom moo jëm ci émission gox bi te li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàll wi ni mel euh, ñu gis itam li nga xam ne moom moo jëm ci commune bu Dalifort ci problème ndox boobu lan nga ci mën a wax ci commune ba amul problème wala lépp gongo amu leen problème ndox. waaw alhamdulilah rabbil alamin dañuy sant yàlla. dañuy sant sunu borom bu baax a baax parce que bon kenn du ne donc amuñu problème à cent pour cent mais wax dëgg yàlla dey bon ba tey ji jusqu'à présent instant yi déggaguma foo xam ne nee nañ ah secteur bi amul ndox commune bi amul ndox bañ nañ ko ba ndox bu amee coupure man je ferai le nécessaire bu ma ko yëgee rek damay woo les services euh, Sen'Eau wala waa SONES ñu envoyé ay sites ay sites alternes bi ñuy liggéey de bi ñuy liggéey KMF 3 pour dire que ni lépp lu ñu lépp luy xew ñu dañuy teel a jël suñu matuwaay ba mu bañu see fekk mun nga laaj tey nga fay liggéey boo demee Sogas ay Seras et tout genre. Mhm. nga xam ni dafa am instant période bi nga xam ni donc dañ liggéey. mais chaque fois bu ñu amee information bi dañuy jël no devant woo ñu wàcc fa ay citerne ak ndox. Mhm. donc moo tax problème problème kii moom je ne pense pas que ni. Mhm. am na donc daal foofu daal Dalifort kon mbokk yi Dalifort yéen amu leen problème ndox wéy ci waxtaan bi monsieur le maire ci commune bi nga xam ne tey yaa ko jiite euh, li jëm ci wàllum bassin bi euh, askan wi nag wala ñu dëkkee ca boor boobu nee nañ li nga xam ne moom moo jëm ci bassin bi naam baax na waaye ndox bi est-ce que mi ngay dem fa mu war a jaar. waaw je pense que problème bassin bi le problème est beaucoup plus profond que ça. parce que je que ñi fa dëkk xam nañ ko donc si rajo laay wax ñoom ñi ngi may déglu. Mhm. donc y a maintenant deux jours donc le président le président de la république mu yónni Omar Gueye mu ñëw pikin mhm. pour euh, euh, pour jokkoo ak yi bi mu defoon moom suivi président wax ñu ñu ñu présenté ko benn plan d'aménagement du département de Pikine mhm. y avait le préfet y le sous-préfet y ñëpp ma signalé ko parce que dafa am pipeline u saar yi mhm. waa bi ñuy defar train express régional mhm. dafa am foo xam ne dafay fuité dugg si biir bassin bi loolu mooy loolu moo infecte ba bassin bi ba population mu mënuñoo nooyi mhm. mu créé benn lakk parce que c'était en deux mille je pense que c'était en deux mille dix-sept man avant essane ñëw man bi ma ñëwee donc ma utiliser sama moyen yëpp rencontrer la directrice générale bu SAR rencontrer directeur général ONAS le préfet ñëw fa le gouverneur ñu def fa benn séance waa APEX ñëpp ñëw ñu def fa deux visites la la fois passée li ma leen rappelé woon loolu laa leen rappelé waat. population bi ñu ngi souffrir. parce que man lu mu àndu ànduma si bañ ma naan yow instant tu es trop rebelle ma ne ko no parce que je me trouve du côté instant de la population maay seen avocat te lu ma gëm man moom laay wax man leen nag lii mënul wéy parce que ñëw ngeen fi ne di ngeen jël ay mesures ah, mesures instant d'urgence à deux reprises mais jusqu'à présent y a pas d'évolution te lu amul évolution instant yi dañ koy wax donc ñoom bi ñu ñëwee ma wax leen ko ñu ne ma non monsieur le ñu hier laa mujjee déggante kenn ku nekk ONAS mu ne ma semaine bii di ñëw dinañ def le nécessaire. Mhm. ba bassin bi dinañ ko dinañ ko dindi ba mu set wecc mais bassin bi mi ngi dem amul benn problème. amul problème amul bassin amul problème. Mhm. donc raison instant pour laquelle semaine passée mhm. yëpp. tey ñi dëkk instant donc xam nañ li may wax mën nañ ma seede. kon yooyu daal ñu ngi daw. laajal waa ñi dëkk Dalifort. donc je pense que partagé nañ ko sax échange sur les réseaux sociaux et tout genre. parce que léegi politique nekkutul l'art de bien parler da ngay poser acte yu actu yu leer population bi mën apprécier. si si affaire boobu noonu. Mhm. en tout cas loolu daal nekkoon na seen mbébét bi nga xam ni wax nañ ko bassin bi ak ni mu doy euh, li nga xam ni moom moo jëm ci jafe-jafe yi naam yaa ngi ca mais est-ce que waruñu baral itam liggéey bi population waruñu taxaw di xaar. non même bu dul loolu noonu parce que dinañ ko dinañ ko loolu mu assurance la bu mooy jël fii dinañ ko dinañ ko bassin bi dinañ ko nettoyer ba mu set. même en plus de ça on a un projet donc boo xam ni donc si ministère de l' environnement la jaar. un projet de trois milliards. yoo xam ne ñaari bassin yi dañ koy tëj. bi nekk en face la mairie ak bi nekk wetu kër euh, le le b mhm. ñaari bassin yi dañ koy tëj aménagé ko. donc on a recruté benn cabinet d'expertise ay ingénieurs ñu xalaat lan lañ fay def est-ce que dañ koy aménager terrain de football synthétique wala dañ koy def centre commercial wala dañ koy def comme Magic Land xale yi li ñu fooy tout genre bon noonu y a chef de projet boo xam dañ ko recruter elle est au niveau de la mairie donc am na pas mal de choses donc on s'est réunis avec les délégués de quartier les bajenu gox les mouvements de jeunes ñëpp xam nañ projet boobu noonu donc bassin bi pour l'instant bon mesure d'urgence la ñuy ut ñi ngi attaqué fi ñu war a attaqué te gëm naa ne dañ ko laa def beneen bi si des gëm naa ne fii un an fii que une année. Mhm. donc dinañ gisaat beneen xaraf kanam si bassin bi parce que loolu tamit mënut a wéy. Mhm. mënut a wéy. ok bu ñu jógee ci wàllum bassin bi itam tunnel bi itam problème la nee nañ kaaraange ba fa war euh, jàll ba sax problème la ndax. mbirum sécurité ñenn ñi sax dañuy ragal di jaar ci bërëb ba ndax ni nga xam ne moo jëm ci kaaraange gi dañ koy ragal ndax ban assurance koy jox askan wi foofu. waaw bon je pense que ñu bëri fi ñuy wax parce que source source essentielle du mal bi nekkul ci nekkul ci. tunnel bi tunnel bi tunnel bi booy wax ne ñu bëri xamuñu foo ñu nekk tunnel bi moo romb autoroute à péage bi ci suuf. boobu xam nga ne nekkul suñu responsabilité mm. autour à péage amul benn mairie bu si jël responsabilité mais malheureusement mm. saa yu ñu fa defee ay lamp dafay am ñoo xam ne guddi gi ñoo fay ñëw toj la kii te foofu dafa génn si croisement af Cambérène croisement Cambérène ñëpp xam nañu ni mu meloon problème insécurité et tout mm. mais ñi ngi si xeex ñi ngi si xeex donc euh, malgré nos mais moyens donc on est obligé ñu recruter benn nit même si passerelle bi jégg si autoroute à péage di wàccee cité Belvédère mhm. waa cité Belvédère tamit noonu la leen defoon dañ leen sonaloon chaque fois agression et tout yaa a boo xam ne moo fa nekkoon doon volontaire waa quartier bi réunir daan na ñoom pourquoi pas ñoom ñu ñuy cotiser entre eux mhm. léegi mairie bi mu jël mu jël en charge seen responsable de sécurité mairie bi instant am ba mairie bi recruter ko bu boobaa moom muy assurer la sécurité des passagers des piétons. Mhm. loolu moom lañ def moo tax actuellement ñoom ñooy assurer sécurité bi fa nekk. Mhm. mais bien vrai que ni amuñu moyens yëpp jusqu'à présent on n'a pas encore la police. Mhm. bi nga xam ni moom lañu ñu yàgg topp donc euh, le. dafa defoon maire Idrissa Diallo nekkoon na si malheureusement fi ñu ko bëggoon def dafa on problème foncier. foncier problème foncier bi actuellement donc yóbbu nañ ko si yoon. donc ba maître Ndeye Fatou Touré mi ngi siy def mais xam nga rek yoonu Sénégal dafa xaw a chaque fois ñu ngi dem ñu ngi yéeg ko wàcc. Mhm. mais nañ ko jàpp ni ñun dañ ko classé comme super priorité. Mhm. donc problème sécurité même ba si fa ba si CRD bi amoon tamit waxaat naa ko fa. mais poste de police mënul ñàkk a Dalifort Dalifort commune bu toll noonu. Mhm. commune boo xam ne yaa yaa Seras. yaa Sogas yaa la yaa marché central au poisson yaa la gare des Baux Maraîchers li fay daje si doomu aadama te amul poste de police vraiment. urgence suma la dégg. non super priorité la urgence la donc wax naa ko autorité yi donc jël nañu note donc problème foncier la ñu am munoo ñëw tamit jël espace jàmm naan da tabax. Mm-hmm. ñi ngi ñaan autorités yi accompagner si te instant yi gëm naa ne dinañu accompagner. Mm-hmm. am na solo tey Mamadou Mbengue la ñuy dalal bokk moomeer bu Dalifort ci émission gox bi monsieur le maire daal di waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci élection yi weesu na yow lañ tabaat ndax mandat nga doon continuer. yaa ngi koy rappelé léegi-léegi feu sa Diallo moom moo nekkoon maire bi tey daanaka un an wala at ak lu topp def nga ko ci mairie ba laata ñuy dem élection bi mooy mandat bu njëkk muy juróomi at bi nga xam ni askan wu Dalifort fal nañ la lan mooy priorité yu njëkk yi ci sa axe yi nga xam ni am nga ko ci commune développé commune bu euh, Dalifort waaw euh, ginnaaw bi ma santé encore une fois la population de Dali Fort bi nga xam ni seen confiance jël nañ ko teg ma ko wékk ko à ma modeste personne. Mhm. donc du ma nekk lu dul seen esclave nekk seen bëgg-bëgg lépp luñ nekk mën na nekk si. mandat bële je l'ai dit je le répète encore une fois dama doon man mandat jàmbur. Mhm. mais ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses boo jëlee secteur par secteur parce que munoo mhm. wax essence yokkute wax essence développement. te jaarale woo ko si les secteurs d' activité. boo jëlee santé man bi ma ñëw benn poste de santé laa fekkoon ak benn cas de santé fu mu toll tey tey cas de santé boobu noonu on l'a en poste de santé équipé ko indi fa ICP indi fa matériel macha allah tey jii boo demee waa Daaru Salaam li may wax ñu may dégg beneen bi si toog maternité bi dafa wàccoon donc ay femmes amoon problème pour bu ñu bëggoon a am doom dañu doon génn dem baris mhm. ñu ñu defaraat maternité bi mais mieux que ça. Hmm. notre ambition mooy maternité bi ñu transformer ko en centre de santé moderne de dernière génération. Hmm. ñi siy liggéey donc y' a même des partenaires yoo xam ni donc ñi ngi waxtaan ñu xool ñoom naka la ñuy accompagner. Hmm. ak les moyens ak les maigres moyens de la municipalité. ñu boole ko ñu ñu tabax suñu centre santé. kon daal ku feebar faju naam génn mënta ñàkk. mais soins yu njëkk ya ñu daal di ko fay jëlee. non soins yu njëkk ya macha allah actuellement ñu ngi ko fay def boo demee euh, zone essence Darou Salaam Touba Seras Mor sa Déggo am nañ seen poste de santé am nañ seen ICP am nañ benn pharmacie bu fa nekk nekk bu ndaw am nañ seen lépp loo xam ni donc ñu ngi koy def. Mhm. waa foor village cité yi aussi am nañ poste de santé ñëpp xam nañ ni aussi ça ne suffit pas. Mhm. parce que d'après les normes de OMS. su chaque de dix mille habitants war nañ am poste de santé actuellement on est aux environs quarante mille. Mhm. kon xam nga ni urgence la. urgence la on est très conscient de ce te ñu ngi siy liggéey. Mhm. boo jëlee si wàllu éducation aussi. Mhm. la même chose donc tey ji Dalifort ñetti école la amoon. tey ñaari école la am donc bi ñu ñëwee amoon na manquement yu bëri yu amoon si école yi. ñu song loolu lan mooy manquement yi lan manquement yi boo demoon si douche yi donc xale yi benn douche man moo doon fonctionnel man bi ma ñëwee remplacer les défauts mel Idrissa Diallo ñu réfectionné waat essence douche yëpp toilettes yi créé fa borne fontaine xale yi dañ doon génn di uti ndox ndox bu ñu bu ñu naan équipé leen enseignants yi amuñu woon siège bu ñu toog récréation yi tout ñu def si li nga xam ne yàpp nañ ni c'était urgent <laughs> tey je pense que loolu sax bokk na si li justifier que l' école Dalifort mi musul jël premier dans le département de Pikine école boobu moo jël année bi passé premier dans le département de Pikine. kon daa mel ni seen résultat. waaw performance su école bi yéen a ngi koy commencé sentir. mais effectivement mais parce que nit boo ko joxee ay moyens bu la neexee da nga koy fixer obi. ay objectif man je fonctionne fonctionne comme ça peut-être sama formation noonu même au niveau de la mairie dañoo jox essence les moyens nécessaires mais on fixe après des objectifs parce que chaque fois li ma leen wax moom laa wax ñëpp à la fin de mon mandat dañ may évaluer te man sama résultat c'est la somme des résultats des différents services mm-hmm. donc loolu tam man dama si veiller personnellement ok ci ci wàllu école bi gis nañ ni fan yi euh, laata loolu grève bi takkaar naa si na woon ci diggante jàngalekat yi ak enseignants yi est-ce que tey mënuñu xoolaat ni nga xam ni moom moo jëm ci mbirum jàngale bi accords yi nu ñu koy siñee déggoo mën a am ba problème euh, école sénégalaise dootul amati benn problème. waaw avant ma egg foofu noonu donc dafa am benn point bu ma bëggoon bu ma bëggoon leeral trop. Hmm. parce que fan yii passé euh, lancé nañ benn cérémonie pose première pierre ñu tuddee ko la dafa mel Idrissa Diallo. Hmm. yaa ngi ci projet bi yaa ngi ci. projet bi parce que projet bi def nañ ba lancé nañ marché bi ba ñu jox ko benn entrepreneur. HTIP ñëw assuré ñu mur de clôture bi. Hmm. employeur domaine ñoo ñu joxoon na terrain bi. Mhm. ñu dem ba commencé ko liggéey un gars jóge fële na le ne terrain bi moo ko moom. blocage am blocage dem porter plainte waa dal descos ñu ngi siy mu dem génnee ay titres yoo xam ni xamuñ fan la ko di ko génnee. Mhm. te ñun li ñu permettre li ñu mayoon fit essence pour ñu def ko Ablaye Wade moo génnewoon benn essence décret benn benn décret résilier tous les baux maraîchers yi fa nekkoon. Mhm. donc si loolu si la waa ji dem si suuf ne dafay attaquer le décret bi donc ba après je sais pas en complicité je sais pas genre ba mu dem ba gars yi jox ko si loo xam ni pour mais lu décret présidentiel annulé. Mm. pour mu def ko donc pour euh, les kii équipement parce que foofu noonu boo xoolee amuñu école primaire zone boobu noonu mu doon mm. zone bu sensible amuñu stade municipal mm-hmm. donc loolu maître Abdoulaye Wade kii woon donc si la waa ji dem am si tey jii ay titre hier avant-hier lañ ma wone des droits réels mhm. ça m'a posé problème kii fa la jaar dama rencontré naa euh, le chef de service des des domaines ma wan ko mhm. journal officiel bi ko résilier mi moom gisul woon sax lii donc loolu moom da ko jaaxal après dina dina woo san conservateur mu aviser ko mhm. ba kooku dootuñu génne di mais am ma grande surprise hier je léegi nag euh, man instant dinaa gis les autorités lundi suba incha allah am na rendez-vous ak autorité bu mag. Mhm. pour wax seek moom parce que. Mhm. je pense que lu askan wi soxla. soxla tey jii waruñoo néewal doole askan wi di ko jox. pour kenn nit. da nga jàpp ni dafa am ñu nekk si ginnaaw. waaw non dama jàpp ni dafa am ñu nekk si si ginnaaw te ñooñu da ko dale fort donc xamuñu sensibilité bi fa nekk. mais ces justes sont animés par des intérêts crypto personnels. xaalis ci naka ci naka non parce que xaalis. tey ñëpp xam nañ tey tali fort fort nga am fa cent cinquante mètres carrés bu amul boo amul quarante million millions munoo ko am donc terrain bu mel noonu cinq cent mètres cinq mille mètres carrés ñu bëgg ko morcelé caxat caxatee ko te population bi taxaw pour am école donc je pense ko loolu c' est un problème c' est un problème à régler te manques yu dox ni mu si war a doxee parce que dëkk bi am na yoonu quand donc loolu bëggoon naa ko leeral askan wi xam ni. am na solo parce que ñu bëri dañ doon wax ni euh, projet bi ndax yaa jëloon engagement nii di nga duppee ab école fa sa Diallo parce que ñu bëri doon laal laame est-ce que du mbirum politique moo tax nga nar si arrière. non ñun ñun instant doxuñu dara ay politique bien vrai que politique moo ñu fa teg mais bu ñu fa politique tegee lay tax population wóoluñu mooy liggéey ba ñu fay def ak fayda bi. donc je pense que onze mois yi ma remplacé le défunt maire Idrissa Diallo ko remplacé. presse bi lu ne wax nañ ko ñii dañoo jënd conseil dañoo kii du population moo fal et mm-hmm. mais tey mi si demee si ay élection kon Mame Boye jaawoo ak Mor Ngom ñu fa ñëw jox xaalis conseil est-ce que benn conseil xam nga on fait de la politique on fait de la politique te tey politicien loo ko jox bu subaa day taxaw si rajo bi wax ko pourtant baat na wax campagne ba campagne bay jeex benn kenn musu ko wax mais wax ju ñu ñaaw moo yàq milieu politique bi nit ñi instant dañuy sos dañuy inventé jox xaalis pour lan mais bu ko doon jox man mu jox ma ko man mi wala mu jox ko keneen ak keneen wala mu jox ko ñoo xam ne mais pour lan muy joxe xaalis wala mu joxe ay mais tey xanaa koon instant dañ ne askanu Dalifort dañoo jox ku nekk terrain wala ku nekk xaalis pour ñu voteel ma pour dire que ni c'est vraiment c'est vraiment dommage, dommage au Sénégal li ñuy def instant de la politique mhm. donc dañuy sos dañuy inventer mhm. mais lu dul dëgg du yàgg. dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj. Mhm. ci wàllu lekkool yi itam formation ci la bokk. bàyyi ngeen ko pàcc bu am solo la est-ce que yéen a koy bàyyi xel yéen si seen mairie bi. non formation moom chaque fois parce que ñun sax instant bi ñu ñëwee actuellement dañu signé ay convention ak ay école lu fa musul am di may ay bourse de formation kon xam nga nii formation xale yi ñun ça nous tient mhm. waaw. ci wàllum liggéey gi xëyum ndaw ñi naam euh, amu leen euh, ni budget bi wala koppar bi tax ni ngeen di ci wàllum liggéey mais itam xëy na mairie bi toogul rek di seetaan. non si wàllu liggéey bi dañuy sant yàlla. parce que ñun bi ñu ñëwee. donc mbedd Dalifort yi boo romboon sunu borom suturaal nañu ko nañu on a une commune à quatre-vingts pour en eau usée en eau. Ah, jëloon nañ ko exemple moment en eau usée en eau pluviale. Mhm. tey ñu am ay pavé. man mon objectif mooy fii ñetti at on aura une commune sans sable ñu pavé commune bi yëpp mën na nekk actuellement maa ngi si am naa benn projet pour Promoville mbedd yu bëri pavé nañ ko j'ai deux kilomètres et linéaire man ak Fera signé nañ benn benn convention marché bi la la lancé nañ ko donc bientôt dinañ ko joxe y a aussi un autre essence projet yoo xam ni Ageroute ñu ngi siy waxtaan pour ñu accompagner ñu gis nga tout est forme de tout est relationnel en plus aussi tout est instant loolu leadership man bi ma ñëwee amuñu woon ñu bale bedd bi man automatiquement bi ma ñëwee semaine bi si topp bi may remplacer les défunt maire Idrissa ak Diallo on avait recruté 63 jeunes ñuy bale mbedd mu set cette fois-ci on a 114 personnes jeunes. yoo xam mairie bi moo leen di fay. non du mairie moo leen fay mais convention la ñuy signé ak d'autres partenaires. ok partenaires ñu ko jël. jël en charge c'est pas instant la mairie mairie bi instant dina dina ah, souffler. dëkk bi dina set xale yi dina xëy. mais dañuy xëy dañuy wax tamit xëy mais est-ce que ñiy liggéey foofu euh, ci commune bi lañ jóge amul kenn ku jóge feneen ñu jox la liggéey. man nag euh, damay xaw ma xaw ma instant confident la xaw ma je très nationaliste man moom je suis très nationaliste man sama commune d'abord même recrutement programme mu Promoville bi xëyoo bi am ndaw ñi les cent jeunes yi ñu jëloon formé leen recruter leen si biir commune lañ dëkk. ku dëkkul si commune vraiment mooy loolu. je suis très nationaliste. je très nationaliste tey jii tamit bu ñu demoon beneen niveau tamit banlieue laay wax Pikine laay wax bu ñu demoon beneen niveau Sénégal laay wax après moo wax Afrique après moo je suis très euh, ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu marché yi parce que euh, ñu ne ñu marché bi nga xam ni tey moom ngeen am laata ñuy dem ci beneen marché joolaa bi nekk na ci benn stade bi nga xam ni. Euh, dañ ko faw mu sa soppi xar kanam. Mhm. waaw ñu bari nag nee nañ faw mu soppi xar kanam ndaxam euh, yow dégg nga loolu wala gis nga ko lan nga ci mën a wax ci marché bi. waaw je pense que marché bi man li ma wax man na sànq dem naa fa gis naa ko marché central au poisson waxuma la marché Joola sax mi nga xam dafa nekk à l'intérieur de marché central au poisson y a tout sauf une gestion c'est du n'importe quoi la fa nekk la fa yàggoon nekk tout gis nga àdduna dafay dox nit ñi dañuy dox. tey jii man échange je préfère un jeune bu am plus d' expérience nga teg fa benn paa boo xam am na plus de soixante ans actuellement on a remplacé ki fa nekkoon indi fa un vieux boo xam ni il est à la retraite retraite na. ci marché poisson ci marché central poisson kooku moo ko géré amul ka fa nekkoon ak. moom monsieur Gassama monsieur Gassama amul changement ka fa nekkoon man bi mu bi mu egsee on est la même mouvance présidentielle parti socialiste la nekk parti socialiste dem naa ko ñu waxtaan et tout ma ne ko arrêté de dévolution bi nga xam ni moo ne woon moom la acte trois bi indi ne commune bu nekk lii la am dafa joxoon marché Joola la commune de Dalifort Foirail mu indi arrêté bi ne ko yaa xam xeeti li commune bi moom jox leen ko ko la ñuy lijjanti leen ñu wax ko bien vrai que ni acte euh, trois dafa wax ci texte yi tout ce qui équipement marchand ça doit revenir aux collectivités donc kon man sama marché kii jox ma ko ba pare ñu soo a wax nag marché central jusqu'à présent muy def bras wax naa ko à kii droit wax naa ko son ministre Ala Aliou Ndoye il fait la sourde oreille donc j'étais obligé engager un avocat yoon may na ma ko damay jaar si yoon parce que malheureusement Sénégal loo def ñu ne politique kee on est la même mouvance ñoo bokk ñoo bokk fa ñu nekk mais tey li commune bi moom du ma si négocier dañ koy jëli la même chose aussi ak euh, la gar boo maraîcher. kon monsieur le maire balaa ñuy dem ci boo maraîcher bi kon donc luy rusee ci marché poisson bi yéen commune bi amu leen ci dara. un franc du dugg si commune bi un franc laa la wax te bu nekkee salteel suñu commune la ñuy salteel des milliers de personnes yu dugg suñu commune la ñu dugg lu ñu fay indi si feebar suñu commune ñoo koy subir alors que un franc jógewul si marché bi dugg si keesu ko ko commune bi. la gare est des beaux maraîchers aussi c' est la même chose bi mu nekk pompier donc oto bu gu génn dafay fay la commune de Hann Bel-Air cent francs des milliers de véhicules ñoo fay génnee par jour jusqu'à présent un franc du dugg si commune boo waxee ñu ne contrat de concession man ne leen mais nit ki loo moomul mënoo ko négocier. dañ leen laissé kon dëgg. non mais dëgg dëggantaan man leen loo moomul stationnement acte trois dafa ne commune bi moo ko moom. mais amul ku mën a jël pouvoir boobu noonu di ko def ci contrat de constitutionnaire bi commune bi li moom da koy jël donc ñi ngi aviser woon naa le ministre Mansour Faye ndeysaan il était très sensible joxe woon ay orientation wala directeur général ma central euh, garde boobu maraîcher ak yor situde ne nañ ci waxtaan mais jusqu'à présent le directeur général situde il traîne les pieds da ngay wax ak moom mu idil la wax ju neex wax ju kii mën na ko sawaay ñun nekkuñu fi ci loolu noonu lii la parce que je ne peux pas concevoir tey lu garde boo maraîcher liggéey CETUD mooy jël redevance yi CETUD toog fii alors que polition bi oto yu fay dugg moom moom fii la nekk CETUD xamul lan moo xew donc loolu kenn xamul kenn mënu ko justifier mhm. léegi euh, naam jël nga benn avocat ngir mu topp mbirum marché euh, poisson boobule léegi lan moo war a doon taxawaay maire bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca commune bi ndaxam loo xam ne yéen a ko moom itam doo ma ne da ngeen di seetaan ñu jël ko. no loolu mënul nekk taxawaay maire bi mooy mooy ma jéem a jaarle lépp si yoon parce que dama gëm ne on est dans un état de droit dama gëm ni suñu dëkk dafa am yoon. donc loolu mooy ma porte sans ma porté combat bi je sais que toute la population de Dalifort Forain ñi ñu ñuy soutenir ñi ngi ñi ngi ñun. Mm. mais duñ fi def comme ñu si bëri nit def di génn di sànni xeer di kii non donc dañ koy jaar fi ñu ko war a aw te gëm naa ni on aura gain de cause rapidement. Euh, wax nga marché poisson boo maraîcher marché Seras yi itam. marché Seras xam nga euh, Seras dafa am euh, abattoir am fii xar yi nekk xar yi nekk ñun ñoo koy recouvrer moo tax lépp. lu ñu fay def ci problème ñun ñoo fay def. Mhm. mais mais abattoir bi tamit ba léegi amuñu fa accès te pourtant abattoir bi. mairie de dakaar moo ko yoroon ñu indi ko donc tey jii matériel ba fa nekk yëpp donc patrimoine mairie la ñoom boo waxee ñoom ñu ne société privée la ce qui est ce qui est totalement faux ñoom instant dañ fekk matériel rek ay nit constituer seen benn benn association kii dugg kii dugg ñu ne ñoom ñooy actionnaires yi ñoom ñoo ko exploité chaque at ñu fay état mooy espace bi ñu occupé mm-hmm. xaw ma six millions sept millions et tout donc léegi ces mêmes personne là ñoo exploité tout le amul un franc boo xam ne commune dina ko jël amul un franc boo xam ne état bi dina ko jël alors que mhm. matériel ba fa nekk lépp donc patrimoine euh, collectivité ville la woon ville bu ñu bu ñu koy transféré normalement commune bi mu waroon jël lépp mhm. mais est-ce que tey soppi euh, politique bi doxalin bi itam naam fii nga ko fekk est-ce que waruñu soppi itam doxalin bi nit ki sa biir kër ñu ñëw luyee la ko war la fay duñu la fay ngay jël xaalis bi di ko yóbbu feneen te commune du ci am dara est-ce que waruñu changer li nga xam ni nag moom moo jëm ci mode politique boobu. mais exactement donc raison pour laquelle nag ma ne bu fekkee ñun bëgg nañu instant mu changer ñun il faut ñu changer aussi la façon de faire instant de la politique politique politicienne bi sos wax loo xam ne amul nit ki lu mu gëmul bul ko bul ko wax. donc te et puis euh, parce que malheureusement dañ dem ba Sénégal boo waxee ñun ah politicien la parce que on a le même discours tey da ngay wax li donc je donne l' exemple de mon frère Barthélémy Dias fan yi passé benn vidéo mi ngi circulé mi valider nii le président Macky Sall bu ko neexee mu laaj essane beneen beneen mandat constitution may nag ko ne bi ñuy xeex xeex la fois passée ni Ablaye wadd warul am moom il savait pertinemment que Ablaye Wade waroon na amoon na yoon mayu na ko pour postuler. Mhm. donc benn vidéo mi ngi circulé sans sur le. da ngay défendre thèse troisième mandat. non du ma non xam nga dama lay indil essence benn affaire. Mhm. tey jii dafa am yoon lu mu wax ñun ñëpp bu fekkee euh, nangu nañ ni on est dans un état de droit quel soit alpha lu yoon wax li ma gëm ak li nga gëm amul sens li yoon wax dañ ci sëgg man bu ma defee politique c'est le président Macky musuma def politique bëgg politique. moi je suis ko gis essane te la ma gisoon si moom ba tey moom laa gis si moom mu doon un patriote un visionnaire ku bëgg Sénégal mhm. donc je pense que kooku noonu ba tey man fa position ba ma newoon position bu laa nekk pour accompagner ko mhm. pour ñu jël Sénégal yóbbu ko si beneen niveau y compris bu bëggee troisième mandat da nga ko si jàppale bu ko yoon maye bu fekkee yoon may na ko ko man maay njëkk a jóg ma la la laaj ko bu ko yoon maye maay njëkk a jóg mhm. ne nañ ko joxaat parce que doylaguñ si ñoom. parce que je pense que nekkatuñu euh, dëkk bu boo xam ne parce que Sénégal dañu war a romb fenn fi gis nga yokkute kenn du ko tabax si benn fan kenn du ko tabax si tey jii les exemple yi ñuy cité ñëpp ba demee en Chine tey jii amul limitation bu donc te tey dañ naan Chine mooy première puissance mondiale boo génnee état tey jii Poutine mi ni mi ni mi ni ñuy wax non du lëmbee dëkk bi Poutine dafa créé benn équilibre mondial tey jii Poutine bu fi nekkul woon américain leen neex neex moom moom la ñuy def tey jii ñoom seen dëkk niñ ko bëggee occidentaux yi lu nekk lu nekk wax nañ ko mais saa yu demee élection de parce que xam nañ fa lañ jëm donc Allemagne Allemagne laa même chose loolu mooy indi fi Angela Merkel am nañ ñaatam fal nañ ko falaat nañ ko mais parce que xooluñu la personne mais fam la ñu yóbbu moom lañ ko xool. Mhm. je pense que loolu nekk woon sax. sujet bi waaw ah. mais yow est-ce que yow d'accord nga kon limitation mandat d'accord aussi. non limitation mandat donc am na sens amul sens man pour man personnellement. Mhm. donc limitation mandat gis nga les Sénégalais la ku ñu bëggul mënuñu laa fal ah, Ablaye Wade. laa faa passée bi mu ko forcé mais sénégalais yi ñoo dem carte voté sa waa ji bu ko naree forcé nag du am problème Macky Sall Macky Sall bu ko yoon mayee mu déposé sénégalais ma ne saa gëm naa ne dinañ renouveler dinañ renouveler seen confiance essence si moom parce que liggéey na lu tax sénégalais pop porte ko ñu dem waxtaan ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci jamono joo xam ne ñu ngi amal wàccaay élection législative yi wala laata ñuy ñëw foofu gis nañ euh, njiital APR jégg nga waa euh, coalition Yewwi Askan Wi ñoom itam àddunañ wax joxe nañ seen résultat ñoom nee nañ itam ab pàcc bu am solo ci biir Sénégal gañe nañ ko ba élection yi sax am nañ ci taxawaay bu am solo kon boo gañe nañ leen. naka lañ ko gañee loolu xam nga loolu bu wax ju yàqu la loolu wax ju yàqu la je pense que euh, Sénégal sur cinq cent. cinquante cent 557 échange mm-hmm. commune mm-hmm. je pense que ñun ñu am cent échange 489 nga ne kooku yàqu ko gagné donc c'est même pas raisonnable xel sax na nanguwu xel sax na xel sax nanguwu ko boo xoolee sur les sur les 48 euh, ville mm-hmm. et départements donc ñun échange on a les 39 donc je pense que nga ne kooku di nga am fitu taxaw naa non kii kii man maa ko gagné loolu xel sax xel sax nangu ko parce que wax naa la politique c'est devenu du science c'est une science exacte la politique c'est une science exacte plus un égale deux chiffres yi mu chiffres yi nekk fii tey nga taxaw fee naa non parce que je suis le maire de Dakar je suis maire de Thiès et tout et yooyu communes yu am doole la ci wàllum électorat. je suis d'accord. Diourbel jàpp axe. Euh, fi nga xam ne moom moo di Ziguinchor. dakaar naam ga mosu leen ko gañee dañ leen fa gañewaat mais boo xoolee action yooyu yëpp seen toogaay kon am na solo. gis nga action yooyu yëpp Ziguinchor ma ngay wax mosuñu ko gañe donc Dakar. mi ngi wax kon yéen jéemu leen jéemu uti gañe ji Ziguinchor. bëgg nañ ko de buñ ko mënoon a bu ñu mënoon am 100 pour cent dañ koy am mais mais unanimité amul fenn bëgg nañ ko bu ñu mënoon am 100 pour cent ñëpp voté le président Macky dañ koy def. élection présidentielle yi bi ñu si bi ñu si bi si génnee bi ñu amee 58 pour cent président moo taxoon ne après les 42 pour cent dina xam lan moo tax donc voté luñ ko. Mhm. donc je pense que loolu xam nañ ko. Mhm. te si loolu moom la ñuy liggéey ba ñi nga xam ne voté luñu donc saa yu ñu soxlaate bu leen tàndree làmmee ñooñu mën ñu wuy si. ba tax na seen njiit euh, njiital euh, coalition benn Bokk Yaakaar envoyé ay. su ma ko mënee tuddee mission wala ay émissaires ci quatorze régions Sénégal dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, responsable yi remobilisation la wala waajal élection législative yi. je pense que noo ko tuddee rek remobilisation waajal élection yi noo ko tuddee rek amuñu luñ siy ragal wala lu siy sànni nan na bëtoo génn nañ si élection locale mu sensible élection locale ñëpp xam nañ nu mel surtout bii nii c' était suffrage direct c' était rendez vous et d'un avec sa population. bi élection législative la day am liste départementale am liste nationale donc bii nag dañ soxla union autour de l'essentiel loolu moo tax la président Macky mu constaté woon y avait des listes parallèles et tout. tey jii yi wax ji wax wax ju bari ji liste parallèle yëpp bu ñu àndoon wax ji nii ndox du am mais parce que y avait des listes parallèles ku si nekk wanee sa bopp fëgg sa dënn maa mën maa mën loolu moo ñu indil lii. mais balaa loolu nag mu bu buy amaat donc élection locale yi am na lu ci jàngee. gis nga ah, nit ngeen si leçon non mais gis nga nit boo toogee suba ba nga ngoon te amoo dara loo si jàng jàppal na sa journée boobu noonu seen nul nit laa la wax de nit boo toogee toute une journée te amoo dara yow loo loo jàng mu yokk si yow jàppal na yow sa journée boobu c'est nul donc loolu la président xam loolu moo tax mu teel a jëlee devant envoyé ay émissaires ñu waxtaan ak askan wi parce que boo nekkee yow daa njiit di nga am intellectuel di nga am fou di nga am ñëpp parce que njiit la. Sénégal dafa yéeg boo famee nag famille bu fekkee am nga ko donc ku si nekk da ngay xool noo ko jéem a wax ak moom. ba mu entee entrer dans les rangs ba suñu objectif ñu mën ko atteindre. mais njiital coalition Benno Bokk Yaakaar waxoon na ko ca Kaffrine nee na euh, yi du ci euh, baal benn liste parallèle y compris ba mu demee euh, Paris si la cité waale sax ki nga xam ne moom moo di Mame Boye Diao ne moom moo ko autorisé mais est-ce que itam élection législative yi. njiitu réew mi mën na ñàkk tere seen biir li liste parallèle mën a am parce que yeneen alliés yi itam dañuy am conviction mën a dem outil tamit yi nga xam ne moo jëm ci ay voix. non non je pense que le président de la république waxoon waxul woon de il a donc il que ni zone yi nga xam ni leer na ko ni kay jël P kay jël 2 kay jël 3 yëpp si ñun lay ñëw ba mel ni si parallèle amul enjeu. quel que soit alpha le maire yu <laughs> ñun lay ñëw ay Matam gis nañ fa ay xët-xët diggante Farba Ngom ak maître Malick Sy bien vrai que ñoom dañuy nëbbatu ci ay ginnaaw liste ñëpp si ñëpp si mais Mame Boye Diao ak ak Kolda Bibi ña fa nekkoon ñëpp ka jël P ka jël 2 ñëpp affaire la foofu noonu nga autorisé essai liste parallèle c'est juste pour nga xam euh, kan moo gën a légitime après parce que politique dafa évoluer c'est pas parce que kii moo fi nekk depuis bi ñuy ko créé APR rek chaque chaque fois moo mm-hmm. donc mais bu yooyu nga xamee nga xam ne amul enjeu mm-hmm. opposition bi presque kii wu fa amu fa bokkul ak ay ville dakaar mm-hmm. bokkul ak ay Pikine bokkul ak ay Guédiawaye nga xam ni fii donc c'est autre chose réalité bi beneen réalité la par exemple bi ñuy wax ñooñu lay wax ni soxla bu liste parallèle fii mais yeneen localité yi nga xam amul woon a woon a enjeu bi je pense que. Mhm. waxul woon ak ñoom. yow ak sa diggante ak Awa gis nañ ni élection locale yi dafa mujjee bàyyi njiitu réew mi tabb la mu nangu des ci ginnaaw. Mhm. rivalité boobu bien vrai que di ngeen ko rafetal. Mhm. sa diggante ak Awa Niang lan mooy problème bi. non sama diggante ak Awa amul problème. parce que kenn musuma ba dégg ma xarab ko wala mu doon. mais bëggoon na nekk maire. mais c'est tout à fait normal ku def politique te amul politique aw ñaaw ñoo àndoon mu nekk la coordinatrice au niveau communal nekk responsable des femmes au niveau départemental ma nekk responsable des jeunes ñuy dem ñuy dem àdduna dox ma dem ba gis nii man actuellement il est temps parce que vision bi ma am ak li ma bëgg a yóbbu sama localité gisuma gisuma keneen à part man ma ñëw wax ko. Mhm. donc moom tamit mu ne bëgg na. mais bu ñu demee sunu borom daal ma koy ma koy teel a jox avant ñuy egg si ay élections. président Macky Sall tamit confirmé ma tey jii nii population bi jox ko jox tey le président de la République ab raison. Mhm. parce que mënoon na mu choisir ba pare beneen affaire am si. Mhm. malgré wax ji si am. donc je pense loolu c'est tout à fait. kon jàpp nga ni yaa légitime tey pour euh, ndenk tab euh, nekkoon choix njiitu réew mi. mais mais résultat urne nii confirmé na ko bu fekkoon tey jii beneen affaire am na tey bu ko neexoon mu taxaw daan ne président da juum. Mhm. mais sunu borom suturaal nañu ba président soit bi mu defoon. population fekk si nañ ko sunu borom dimbali ñu ba loolu loolu amp beneen euh, équation itam ñu ngi dem ci ay élections législatives Awa Niang ci Pikine moom mooy député bi. Mhm. tey for naa ko ci weewu béy ni ñu koy waxee que ni da nga am ambition tey pour jiite liste wala nekk ci liste jël toogu ba mu nga xam ne moom fa mu nekk da ngay dëggal loolam. nga xam nga man chaque fois instant wax naa ko moi je je suis un soldat devant commune dans un premier temps. Mhm. un soldat de son excellence le président Macky Sall je suis un militant très discipliné kenn du ma dégg si ñàkk fay day ay yenn détails et tout genre yooyu noonu non donc président mooy choisir cette fois-ci loolu la circulaire yi wax même émissaire yi mu envoyé y a pas de candidature et cette fois-ci moom moo jëlal boppam département bu si nekk. ñi mu fa nar a dal nar def il a ses propres comme ni mu ko defoon si élection sion locale yi suñu borom may fa ndam donc ñun tamit en étant un militant très discipliné dañu jëlaat sunu ambition ak la ñu bëgg lu ñu bëggul lépp daal di ko teer lum ñu wax bu subaa buñ nee liste bi kii la kii la ñu ñu génn porte liste boobu noonu battre campagne pour liste bi am victoire. wax nga ko sànq ku nekk dangay ngay am conviction ak ambition. Mhm. mais yow itam am nga ambition tey ëllëg. ñu ne honorable député du Mbengue mais sama ambition je pense que mën na nekk foofu mën na nekk feneen man wax naa la je ne fais pas de de fixation sur une chose chaque fois dama ko waxoon ñu si bëri ne leen la mairie la c'est pas une fixation pour man c'est pas une fin pour man peut-être ñi xëccoo ñeneen yi def ko fin ñooñu tey jii boo ku fekkee la ngay yootu amuloo ko di nga am lu la métti trop mais peut-être dañ fu war a aw mais am na yeneen mission yoo xam ni mi ngi xaar. Mhm. gars dañuy fàttali ni politique nga ngëm yàlla def si ëpp solo dañuy fàttali ni nit dafa am calendrier mais sunu borom aussi dafa am calendrier. te yow da ngaa non man ñu man ñi nekk APR xam nañ ko ñu nekk APR aussi xam xam nañ ko. donc dama rampe ba tey mhm. sunu borom instant teg ma fii kon nag c'est pas aujourd'hui laay ñëw di dugg si ay yoo xam ni genre bu subaa ku amoon si man benn considération sax tey bu gis danaa mais cam. loolu moom laa éviter. <laughs> création euh, association des maires du Sénégal euh, coow lii bari na euh, yeew yi nee nañ dañuy teg seen collectif association des maires am bi fi nekk ndax da nga jàpp ni loolu lu légitime la itam munoo ko munoo leen ko bañal. xam nga wax naa la Sénégal malheureusement donc ne mérite pas cette opposition malheureusement parce que tey jii nii instant dañuy kilomètre gauche jàddut loo bëgg a wax foofu non si parce que li ñuy wax instant gëmuñu ko mënul nekk yow mënoo nekk minoritaire nga ne da ngay teg association beneen association parallèle alors que am na association boo xam ne moom lañu reconnaître boo xam ne c'est apolitique tey jii association des maires bii nii AMS ki yor xaalis non mais bokkul APR chaque jour daf ñu ko combattre moo nekk le maire de Ngaf ginnaaw raay Abdoulaye Diop ginnaaw raay Abdoulaye Diop pour dire que du du parti c'est apolitique intérêt maire yi collectivité locale yi moo ko tax a jóg mais venant de Ousmane Sonko donc mun na comprendre parce que la fois passée invité nañ ko mu muy def def kii bi am na lu mu wax étant sous contrôle judiciaire mais ne toog na deux mois sans mu dem signé si mhm. ce qui est tout à fait faux parce que non si lépp mu ngi doon dem instant signé benn yoon la toog si wul te joxe na mhm. certificat médical mais mi xaar état bi génn feneen mi ne waaw état bi dañu ma ragal lu mu wax ñu kii nii genre yu ma noonu c'est juste pour jouer sur l'intelligence des Sénégalais manipulation c'est juste sur jouer sur l'intelligence des Sénégalais affaire passeport bi aussi c'est la même chose joxuñu ko ko assemblée nationale seen passeport jeex mhm. assemblée nationale ah, kon lu ci ministère ba du ut no non xam nga ministère bi terre bi instant ministère bi li mu wax nee na moom gisul Ousmane Sonko gisul keneen assemblée nationale moom la reconnaître moo def benn loo loowu dafa député yëpp seen passeport moo jeex mu hmm. indi ko ko pour ñu renouveler leen ko mu renouveler loowu député yëpp yóbbu ko il n'avait pas le droit muy téye naan parce que kii la kii la liste lañ ko jox liste ba la renouveler jox assemblée nationale hmm. assemblée nationale aussi Ousmane Sonko c'est un député comme Aonia comme Massamba comme Demba hmm. mais loolu c'est deux choses différentes tey jii bu nar a génn loolu beneen étape la mais gars yi fois dañuy créer polémique mhm. donc jouer si intelligence su sénégalais yi ndax ñu dugal si yenn erreur ñu nekk si di si waxati pendant un mois mhm. alors que ce des futilités ok xanaa boo d'accordul ci collectif yeew yi nee nañ dañuy taxawal association des maires xanaa war nga mën a am ambition léegi pour jiite AMS wala yow loolu bokkul ci say ambition man samay ambition je pense que maa ngi si fa may jëm xam naa ko donc je pense que AMS comme ni ma la waxoon AMS kese nekku fi leneen leneen instant nekku fi ay jeunes lañ suñu borom sutaal nañu fépp fu ñu fu ñu dem fu ñu mës a liggéey wane nañ suñu lu ñu jox bu ñu ko joxee ren fii ak un mois boo ñëwee di nga fekk ne di nga fa am dina fekk yokkute bu rëy rëy. léegi am nga ambition pour jiite AMS waaw wala déet. non AMS non vraiment pour diir vrai non non aw ma ambition pour diriger euh, AMS mais bëgg naa bokk si bureau bi wala genre bi mais pas pour nekk. nekk euh, le président président genre non mhm. non mais bëgg naa la place de la jeunesse ñu sentir ko que mu bañ a nekk man ko mu nekk man ko mu bañ a nekk keneen mais jeunesse bi il est temps que mhm. ñu responsabiliser la jeunesse waaw mhm. waaw ci jamono joo xam ne ñu bare ngi xaar li nga xam ni moom moo jëm ci poste premier ministre laata ñu fee ñëw parrainage opposition bi nee nañ euh, parrainage bi faaw ñu dindi ko wallu dégg nga leen yeewi askan wi opposition bi ñoom d'accorduñ te yéen dañ dem CEDEAO CEDEAO ne ngeen xoolaat mbiru parrainage bi ngeen mooy si parrainage bi rek lan la da ngeen tiit wala opposition bi da ngeen jàpp ni ñoom seen wareef lañ nekk. xam nga xam nga opposition ñu lañuy fekk chaque fois fu daara nekkul ñu indi fa coow gis nga parrainage bii nii nekkul fii la njëkkee de donc Abdou Diouf mi woon Abdoulaye Wade mi ngi foon boobu xaalis la woon boobu ay million lañ leen ko doon la mais tey jii est-ce que xam nga ne élection législative yi bu nekk ñaata la coûté. au au trésor Sénégal trois cent millions liste bu nekk ta te am na ñu si bëri cinq personnes yoo xam ni cinq anciens députés yoo xam ne plus fort reste la la ñu kiiwee ñu si bëri noonu lañ perdre seen caution bi nga xam ne jox est-ce que ñooñu tey mérité na Sénégal di perdre temps de milliards si ay futilités tey jii ku amul assurance nga dem ñu laaj la nombre de parrainage bu ndaw bi ñu la laaj mënoo ko am kooku naka ngay mën a espérer nga am la majorité à a nationale mais yow bu fekkee yow leer na la nii loolu san parce que dañ ne la nga dem si nit ñi nit ñi nga xam ne yow leer na la boo dem élection ñu voté la ñu signé la mais loolu kay man gisuma si problème boo xam ne dinañ ko def coow tey bu ñu laajoon xaalis bu fa bu boobaa bu mën nañ ne donc lii dañ ko réserver pour les pour ñi am xaalis pour pourtant Ablaye Wade noonu la woon 42 milliards moom 42 millions lañ fixé woon mais bii du xaalis dañ la yow. nee nga nit ñi ànd nañoo ak yow mais demal demal instant ñu signaler la. dañoo ñàkk ragal. signature kon c'est pas des candidats sérieux encore une fois. Mm-hmm. parce que bu sérieux woon tey jii foo dem am na parrainage France boo demee foo dem dans les pays sérieux élection de am. Mm-hmm. kon tey je ne pas tey jii ñu egsi fii ñu naan pare naa ñu bëgg a remettre en question yi nga xam ni awoon na fi awaat fi. Mm-hmm. waa ci jamono joojoo ñëpp ñi xaar li nga xam ne moo jëm ci formation gouvernement wala tabbum euh, jëwriñ ilimaanu jëwriñ ñi premier ministre njiitu réew mi ur procédure d'urgence la ñu waxoon léegi daanaka nes tuut ñu dem ci ñetti weer ba léegi ñu ngi xaar euh, lan la calcul politique la am wala day xool euh, koo xam ne mën na nekk candidat am déet lan mooy waral loolu calcul bi la wala dañuy jàpp ni élection législative bu weesoo la ñuy tab premier ministre bi xam nga actuellement li ma la waxoon sànq rek actuellement on est dans un pays non je ne dirais même pas dans un pays donc c'est le monde instant qui est comme ça tout est urgent lépp dafay changer par fraction de seconde c'est le monde qui est comme ça impact bi am li am Russie Russie ak donc impact bi ñun mën nañ def erreur bu ndaw bu subaa mu répercuter si ñun donc peut-être instant le président président instant de la République il a des informations yoo xam ni moo ko permettre tey ji mu jël essence décision tey suba la ou bien ginnaaw suba la mais ba tey ñi ngi si urgence bi wala boog suñu constitution Sénégal dafa ne urgence ñu ngi ko ñu ngi ko natt si un mois wala urgence ñu ngi ko natt si deux mois wala urgence ñu ko natt si cinq mois donc je pense que moom mi demoon ba sentir loolu noonu tey mu laaj ko Assemblée nationale ñu jox ko ko tey jii nii moo ko gën soxla foofu mais parce que il a des informations yoo xam ne ba tey permettre ko tey mu nommé poste poste peuple kon mën na jël taam quoi non buñ yàkkamti buñ yàkkamti parce que man desant ba léegi bu fekkoon am na blocage genre on peut mais mun na nekk suba mun na nekk ginnaaw suba mais comme ñun moom lañ jox te ba léegi lañ ko jox ba tey gis nañ ñu wàcc fu yoon bi mhm. donc essence je pense que man bokk ça ne pose pas problème mais gëm naa ni bon yow yàggatul am na yoon nañ mbékkile lool dalal la waxtaan nañ ponk yu bari ci biir émission bi moom Mamadou Mbengue yaay maire bu commune bu for ñu ngi lay ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo di mbokk auditeurs yi. waaw maa lay fay bu baax a baax di nuyu waa les ñi ñu doon doon doon tax déglu bi émission bi commencé bi commencé ba léegi léegi di leen sant leen leen gërëm. Mhm. particulièrement di nuyu waa population de. dal Dalifort Foirail di leen wax ne la ma leen digoon si période campagne électorale mm-hmm. donc moo tax bi ñu génnee si élection yi ñu bëri ñu ngi doon xaar ma def ay caravane def ay mumbaay et tout mm-hmm. mais man dama jàpp ne saa da ngeen ma sas donc raison pour laquelle donc sentiru ma def fête mais ma nekk si liggéey bi donc loolu moo ma tënk moo a téye ba bu subaa bu ma jàkkaarloog yéen du ma am benn gêne pour wax ni kat li ngeen ma santoon defal naa ko matal naa ko donc di remercier la population de la banlieue mhm. particulièrement particulièrement département Pikine Pikine mhm. donc di remercier son excellence le président Macky sal mhm. donc di ko ñaanal rek suñu borom may ko sànq gudd fan ak wér xam naa ne bu fekkee am na ko rek cinq ans six ans. beneen Sénégal gaal moom la ñu xam nga léegi ñuy wax Sénégal stade Abdoulaye Wade ñuy wax Sénégal olympique Sénégal Sénégal. Uh-huh. Sénégal terre Sénégal BRT. Uh-huh. donc Sénégal VDN. prolongé mhm. donc beneen Sénégal la moom la ñuy wax mais ba tey yokkute Sénégal la suñu yokkute la di leen sant encore fois di leen gërëm di gërëm bu baax a baax ci disponibilité Mamadou Mbengue mu nekkoon tey suñu gan kon jokk euh, jox leen dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi gërëm Léopold yi mu nekkoon ci xarala gi